Yolma Kalistner. abi su fekkee combat bi. mercredi 16 juin 2021 fii si arène nationale. ñu ànd seeg yow ñu ñëw wax CNG comité national de gestion bi nga xam ne moo ëmb nga moo ëmb làmb ji ñooy foone woon tey diggante grand combat dox si diggante Iba mécanicien ak ki nga xamante ne nii mooy Takander. Iba ma seen ay jàkkaarlool Takander moo wane ginnaaw ngeen moo ngeen lu weex la mbokku internet ngay bàyyi xel wasaare ngeen mu oh, ma ngeen na ko Iba ma ngeen seen dana ko jël jàpp na ngeen la Takander a ngay rasu Takander a ngay des a gën a Iba ne laa laa xëy na laa Iba jël ko jël bët mu yaa ngi bëre Iba doon na ko mu bañ Iba Mécanicien ak Takandar Iba Mécanicien daa mel daa bëgg a jeexal combat bi génn na saako yi saako yi Takandar saako yi ñëwaat Takandar génn na Bébé Magasin doon na bëgg a jeexal bi léegi mu bañ. Bébé Magasin. ah daa doon nga fàq na ko. Bébé Magasin Takander ànd yaa ngi bëre de. yaa ngi bëre. làmb ngi nii. waaye Ibba action yi fara te nga moytu baadoo si jëlul Ibba dina ko jëm takandar bañ Iba na Iba yu magin se ak takandar ña ca ba léegi a ah, takandar doo nga jëm iba jël na ko laa ilaaha iba doon ko jël bañ ñaar ñaa ngi noonu ba iba magin se ak takandar Iba Makin Sa Takandar ñanga ca ak Takandar ñaar ñaa ngi noonu ñu ngi ba léegi Iba Makin Sa ak Takandar la ilaha illallah idi eh, Maguette Seye li muy tànn action yi muy tànnee di ko forcer baadu si téere lu ko naxari. non pët bi du yegg day téléphoné pët waaye su bëttee dafa war a yónni tànk ca xamal wala mu bàyyi loo xam daw jargandu waaye est ce que tamit taxandee bu Jalle du ko dóor tànk daw jargandu ak na Alioune na coopérative Alioune Diop ndax njool bu ay tànkam neexee nan la war a bëree. dégg naa waaye doon xar yoo doon ko na Iba Magasin wàcc na di xar Takander bañ. laa ilaaha illallah. Iba ngi dóor ku Iba ngi dóor mag Iba ngi door wàcc na jël ko daan na ko daan na ko Iba Magasin daan na Takander Iba Magasin daan na Takander Iba Magasin daan na Takander Iba Magasin daan na Takander Iba Magasin daan na Takander Iba mécanicien daan na